njàqare ak jafe-jafe la liggéeyu train express régional bi jural askan wi di yeewoo fii ci Hann Village jàpp Dalifort li ko waral di ab mur bi ñu tabax ci seen xar kanamu kër yi jural leen coono gu metti ak ñàkkum kaaraange gu tar am na am na tuuti insécurité parce que soo xoolee bâche bu ñuy def nii des fois da ngay wiiri yoon yi dañ fa gàttoon boo xam ne danga fa mën a jaar dem sa kër mais actuellement fu mu nekk nii foog da ngay wiri da dafa man jigéen ñi xey di liggey fajar bi ñom la gëna a yër yërëm parce que ñom des fois xam nga dañuy tracer bi duñ ko ñeme man sama jabar day day xey di liggey man mako ko bu mu jël auto ma soko ma soko del ci wat waaw. bi ñuy mur dañuy xey rek muré ko te dañ yaaka ni day muré and ak ay passerelle eh, parce que jitu mo jitu won mo mo gën légui mur nañu benen boy bi encore culture nañ ko. mais am na manque de sécurité léeg-léeg nga wàcc yenn heure yi boo dugg si diggante ñaari muy dox dem vraiment nekkatoo si sécurité yooyu loolu tam bëggoon na si am ay xalaat. ñu teer bi gaa mais ñun niñ koy dundee dafa metti parce que dañoo ñëw baare ñu te avant ñuy baare laajuñu ñu ci suñu xalaat te dañoo waroon a laaj ndax ñun ci lañ bokk ndax fii la ñu dëkk te dañoo ñëw rek tracé seen tracé biñ taraasee marqué ne loolu la ñuy dagg mooy doon yoon wi ñuy jaar ñu ñëw dagguñu ko ñu ñëw def seen miir. bàyyi ñu ak poqus bu ndaw dañoo yor ay xale ubbi foos yi fii bàyyi ko foos yaa ngi xesaw na amoo foo jaar foo jaar ñu ne la du fii te ruq si ñu bàyyil dafa sew dañ ko waroon a defaral avant ñuy miir te defaruñ ko te ñoo ko marqué woon te ñun loolu mënuñu ci dara xuloowuñu xeexuñu kalaame wuñu kenn waaye dañoo war a ñëw dimbali ñu te yàlla tax tax ci lañu bokk. liggéey bi moom it bàyyi na baare na yoon bi amuñu fu ñuy aw fu ñuy aw dañuy fu ñu fu ñu aw def ñu duñu ne wéri leen biir yaraax aw ñu dañuy ñëpp biir yaraax la ñuy jógee aw amuñu yoon amuñu yoon bu ñu jaar foo jaar ñu dàq la ku aw yoon ku dëkk côté bii nag bëggoon da bëgg kaa wéeral la bu biir yaraax xam ne métti na si mag xam na neexul affaire bi lool la. am na problème de sécurité fi mu toll nii parce que instant yi da gis jigéen ñi bu ñu ba yenn heure yi ruq bi sew na sew boo xam ne kenn mënu fee jaar amul amul lumière parce que église bi li mu génn dafa bari. fële fii daal boo ko xoolee yaa ko gis kenn mënu fee jaar benn ruq bu sew la rek boo xam ne mu ngi nekk na le te ruq bu sew moom insécurité la moom dangay ñëw gis ñoo xam ne dëkkuñu fi ñu ngi taxaw ay ñoo xam ne moom ay ñu indice kenn xamul lan la ñuy dox xaw ma ay bandi lañu xamul ay lu ñu doon fii façon nit bu ne léegi nga fiy gis. ñu dolli ci ni ginnaaw xat ak coono bi leen mur bi indil liggéey bi mu ngi gàllankoor seen wér gu yaram. sincèrement y a la poussière am na ñoo xam ne suñuy doom yi dañuy dañuy dañuy asma ñii dañuy asma bon ak bon nu ñu tojee daal affaire daal xaw na xaw na doy war daal. parce que xam nga poussière duñu duñu jox meew duñu jox dara da ngay jaar oto romb ak ay vitesse yoo xam ne kenn xamul nu ñoom seen oto yi poussière bi jóg mais kooku day fu mu nekk ñëpp a soj fu mu nekk nii di dañaa jënd jënd garab ak suñuy doom yi ak suñuy njaboot yëpp dañuy soj xoolal lii te passerelle amagul. xolal ko fi gis dënnam ma ngay wut lu ko ndax poser bi du deug te amaguñu fu nu jaar ba legi askan wi mer lol di jambaram tuma gouvernement bi ak sen meeru gox bi ndax te nenañu bala dara di am waron nañ ci waxtaan ak ñoom. xamuñu xamuñu naka la xamuñu ci li xamuñu ci dara de dañu ñew rek tegal ñu nun baadoolo lañu duñu contre bour sunu yoon ci bour waaye nag kuy defal population war nañu xam li ngay def fu muy commencé ak fu muy yem. dañu ñëw rek def li ñuy def dem seen yoon soo leen laajee kan xam lu ñu laa wax léegi te ñun am ay mag yi xam ne dañu feebar mag boo xam ne man sama yaay dafa feebar fu mu ne ba nit yi dañ koy jàpp du ko génnee loolu yëpp wax ñëwuñu laa tàggoo ñu ñëw laa def seen def dem seen yoon. ñun gisuñu kenn ku ñu waxal kenn ku ñu waxal gisuñu ko ay tubaab la gis ak ay portugais lu kenn xamul. booy wax ak ñom xam li ngay wax waxtaan ak ñun koy commencé koñ waxtaan ak ñun ndax ci di secrétaire municipal mairie bu An di ñu xamal ni ak askan wi ñoo ci yam té amul ben yoon bu gouvernement bi ngir ñu bi la TER. TER train express régional ko ku ne xam na projet état du Sénégal état du Sénégal moo projet bobu def ci ay milliards pour def train bu gaaw euh, joxe it nag app dafa ne janvier 2019 ñoom dañoo bëgg a inaugurer ce qui fait que nag dañoo gaawal yëpp baral lépp mais ñun mairie ak population yi ñoo ci yem information yu bëri amuñu ko ni ko gisee lañu ko gisee mairie joué yu ci benn rôle même boo gisee réunion am fii ci mairie benn cabinet bu tudd MSA boo xam ne ñoom ñoo communication beeg aspect social bi ñoom ñoo ñuy àbb saal ñu àbbal leen saal fii ñu defee réunion fii ci mairie waaye yoonu mairie nekku ci. Pape Diène di président conseil du quartier bu Hann Village euh, fekk si Issa Gueye si ay kàddu di ñu xamal ni ñoom am nañ droit dem jëli ji information waaye ñi nga xamni ñoy wa waa ak seeni natango yi yoré liggéey bi ñoo woron dugg ci gox yi daal di sensibiliser askan wi. information mooy li tubaab bi naan elle est da ngay dem nga jëli ko yaakaar naa loolu def nañ ko euh, suñ demee soo su ngeen demee tamit euh, euh, muy au niveau de la mairie muy muy au niveau de APIX dinañ dinañ leen wax ni conseil de quartier am nañ ñoom conseil de quartier en village am nañu ak ñoom

liggéeyu teer bi yëkkati xaaju dëkkuwaayu yaraax rax ci soppi xarkanamu gox bi ak xatal ko lool ba xañ leen sax euh, bërëb bu ñuy fowee wala bërëb bu ñu mën di féexloo ba tax na askan wi di sàkku ngir nguur gi gën leen a jàppale